te am na ci ñoo xam ne euh, ñi nga xam ne li waral lii tey suñ borom dogal ko dañ ci sant yàlla bu baax a baax gouvernement bi nga xam moom la euh, euh, président Bassirou Diomaye fay taxawal am nañ ci njort bu rafet ndax nit ku dëggu ci jëfinam ak ci waxinam ñoom da nga ko xool ci seeni melo parce que Ousmane Sonko li ko li ko li dëkk bi li ko Sénégal jaral wane na ko ba ñëpp xam ko te ñi nga xam ne tey nommé na leen am na loo xam ne ñoom dama dëkk ak ñoom ndax biram euh, Birame Souleye Diop euh, xaritu papaam la maa ngi dëkk Thiès soriante wuñu xam naa ko ci jub ak jubal euh, ki nga xam ne mooy général biram jóob ñoo dëkk suñu kër yi soriantewul à Thiès wante xam nañ ko ci jub. yaakaar rek la yaakaar am yaakaar bu wér ndax par rapport ak li doon li jàll ak ni ñuy def ba jot ci nguur gi ak jeunesse bi ni ñu mobiliser woo daal yaakaar juddu na daal yaakaar juddu na. ñu domaine muy domaine artisanat bi nga xam ne si la ñuy yëngu c'est secteur boo xam ne c'est laissé en rade presque kenn waxu ci te artisanat de production moom branche la boo xam ne suñu leen jàppalee war nañu mën a su bokk ci ñiy suqali réew mi ñoo ngi lancé appel daal. ñi jot nguur gi bees ñu leen ñu bàyyi xel artisanat